jërë ngeen jëf journal bu ci xëyul bàkk njàkk xëy nga di bàkk jàkk Lamine Diack mi ngi daanaka ci mboolem yéen a kay ñu xëyandool journal Source A bind na Diack mu mag ak Diack mu ndaw seeni mbir la 32e chambre criminelle bu tribunalu Paris xëyewoon démb waaye layo bi dàq nañu ko ba ci weeru juin ca la ñu koy atte fa ñu jógi ba ko Source gis na teyenam xel journal bi xamal ñu it ne Lamine Diack la mu doon sàkku mu du ñu dindi contrôle judiciaire gi ñu ko def bàyyi ko mu doxi soxlaam heure bu ko yoon soxlaam wuy ji leen càkkute fam googee bañal nañu ko Lamine Diack ni ci xët mu njëkk gi ma toog teguma sama tànk ndakaaru metti na lool ci man li ma bëgg nag mooy lu ñu def ñu gaaw ci ma xam fu ma féete mën a dellu ndakaaru ci sama njaboot loolee kañ lay doon la tribune sud quotidien ak la séné kaay nañu ci weeru suwe ci la ciy xam dara l'observateur nañu li mu xam ba xam ko daal moo di li indi ñu renvoyé procès Pape Massata Diack ak baayam Lamine Diack ci ndakaaru gi ci la jóge grand place jàpp ne lépp doom ji Pape Massata Diack la li waral ba ñu renvoyé layo bi démb loxom génnu ci moom Pape Massata Diack nañu ci xët mu njëkk journal bi lépp teg nañu ko ci loxoy yàlla sunu borom grand place nañu en attendant baayam yam di Lamine Diack ma nga ñu teg ba léegi ci résidence surveillée mu war cee dund juróom-benn weer yi di ñëw ñu ñëw ci Soleil national mi ñu xamal ne président national di Macky Sall ci weeru mars gii di ñëw dafay dellu ci tournée économique yi mu doon def dafay tàmbali waatit conseil des ministres décentralisé yi ndar di ca Saint-Louis fa lay tàmbalee juróom-ñetti fan ci weeru mars jeexalee ca Matam fukki fan ak ñaar ci weeru mars la Sénégal nañu balay booba nag jamono ji moom Sall mi ngi lijjanti pëcc xoog féewaloo gi biir partem bii di APR delloo si na commission de discipline bu parti bi ci jamono jooc las xamal na ñu ne kii di Mahmoud Saleh mi ngi doon sàkku ñu suspendre Moustapha Cissé Lo ak Moustapha Diakhaté ci APR secrétariat exécutif national bu APR journal bi nee nañu am na lu ca yees Cheikh Omar Anne Abdoulaye Diagne bu mouvement élèves ak étudiants républicains Moussa Sarr bu COJER ak Aliou Ndaw Fall boole nañu leen léegi ci secrétariat exécutif national bu parti bi borom parti bi di Macky Sall président de la République Walfadjri jàppee ko nit kuy néewal doole ay ministre am li tax Walfadjri yéen a kaay wax ko moo di nee na dégg nañu Alaaji Ndiaye directeur général bu 2STV ministre da ngay soxla ab ministre di ko woo du nañu a a yàbbi coow loolee te ngànk leneen la tribune mi ngi ñuy xibaar ne diggante Abdoulaye Wade ak Macky Sall gi tàmbali woon a ratax te léegi muy bëgg a mel ne lu xajam li ko nar a yàq li nar a féewalewaat góor geeg Macky Sall foo koo yee ca pale bala la ñoom Macky Sall la ñu ko jéeñ nee nañu moo sàmmul kàddoom ba tax diggam ak Abdoulaye Wade nar a tàmbali waat a xajam diggante Abdoulaye Wade ak waa Front Résistance Nationale Les Échos nee nañu ci xajam la jëm ndax karimiste yi mu di ñuy jàppal tànk Karim Wade ñoo bëggut a gis Abdoulaye Wade muy ànd ak waa Front Résistance Nationale conwee koroon nañu ko ba mu ne da cee génn ba doon waaji def ab communiqué ginnaaw bi ci la ko baara gay waxee lu ko tax a dellu gannaaw ci dogal bi li l'observateur xëyee romb na dogal tayeef la ubbil journal bi armeel yi bàqaye ca Touba ay samba booy ñoo fa dugg di caxat-caxatee bàmmeel ya di seet lu ñu fa mën a sàcc l'observateur mi xëye xibaar bi dem ci ba di ñu xamal ne Serigne Abdou Karim Mbàkke Falilu borom makaarimal axlaa way juróom wu jigéen fa mu tëdd ci armeel yi bàqaye samba booy yoo fa duggoon caxat-caxatee nañu bàmmeel ba yéenekaay bi nañu ñi njoxte ne ñoo def jëf ju ñaaw joojee am na ñaar ci ñoom ñoo xam ne teg nañu leen loxo su soit ko kenn ki ab tailleur la ka ca ñoom ñaar ñëpp ñoo ngi leen di tudd ci mbir mi mbir mu yéeme te doy waar moo nekk ci journal Vox Populi benn waay bu ñu naan ci am Ndiaye toll ci juróom benn fukket ak juróom moom la ab locataire am taal ba mu jaara ca faatu mbir mi ma nga xewe ci unité 7 ga ca Parcelles Assainies góor gi Thiam Ndiaye moo luyee ab néeg benn waaye bu ñu naan maam Thierno dem ba ca biir xam ne maam Thierno dealer la jaaykatu drogue la mu ne ko na génn abal ko këram ndax moom du dëkk kub dealer locataire ba bañ ñuy jàppante keroog locataire bi di maam Thierno bàyyi ba waaji ko luyee dugg cib néegam di sieste mu ñëw taal néeg ba ba boroom kër gii di Thiam Ndiaye jaare ca faatu